ni jàmbaar la te bu ñu ko jàppalee li sëriñ Cheikh Gaynde Fatma bëggoon ci ndawi Touba dina mën a am moom sëriñ Abdoul Fatah mu taxawu ko lool. yàlla dogal mu bokk ci ñi nga xam ni génnee nañu ci école yi sëriñ Cheikh Gaynde Fatma bokk ci ñi nga xamante ni yàgg nañu jóg fajar di jàngi. mbakke ak fu ci nekk di kot koti ci sedd bi ñun ñi ñu bokk ca moom mu bokk ca loolu mu dund li ñu dund yàlla dogal moom docteur Ablaye Niane mu dund loolu waaye jóge Touba doon koo xam ni yàlla may am ci taxawaay bu dëgër dëgër dëgër te doon li nga xam ne moo tax tey jii Serigne Mountakha samp université bi ngir bëgg doomi Touba bu ñu la yaree yarub murit tarbiya la jàngal la nga génnee ci biir njabootuk sëriñ Touba gii di waa Touba ñu dénk la réew mi wala ñu dénk la ay bànqaan ci bànqaas ci réew mi ngir bu booba askan wi danañu siggi li borom Touba di lëggéey ci réew mi danga nga danañ mën a wax ne dugal nga ca loxoom lëggéeyal nga Serigne Touba ndax boroom Touba amul lu may réewam mi borom Touba amul lu may dongaam yi niki yàlla amul lu may jaamam yi te it jaamu yàlla ci jaami yàlla yi waaye lëggéeyal sëriñ tubaa ci donga yi kon loolu bi ko ko yàlla xamalee jindi ko ca ñun ñii di wax ak yéen coono bi ñuy jànkonteel yépp ci lii loolu rek moo ko waral bëgg servir suñu réew bëgg jàppale suñu askan bëgg taxaw suñu gox moo tax donte amuñu lenn lu ñu jox kenn waaye jàpp nañu ne fii ñu dëkk ak feneen fu mu mënti doon mboolem responsable yi fi nekk kër guñ ci dugg bu ñu neexee fëgg fanaan ba bët set te lu ñu fa soxla jël ko ndax loolu la ñu yàlla boolee ak doomi aadama yi te jàpp naa ne fépp fu ñu fi taxaw du ñu sëgg alhamdulilah yàgg nañoo sonn ci gox bi coono boo xam ne coono bànneex la ndax lépp lu ñuy kot koti rek lëggeel sëriñ Touba lañu ko jàppee muy mbalit mu ñuy an ci sunuy loxo muy bale gu ñuy def muy ay financement yu ñuy toppatoo muy organisation yu ñuy taxawal ngir ñu mën di financer sunu bopp loolu lépp coono amu ci ndax lëggeel sëriñ tubaa lañu ko jàppee loolu lépp bànneex lay doon ci ñun waaye li nga xam ne nag moo xew mooy bi ñu yàlla gindee ñu xam ne béréb yi nga xamante ni ay instance de décision la ñu fay teg sunu ay nit ñu war a yore sunu dëkk war a saytu sunu koom war a jàppale waa Touba waaye mel ni des na yàlla dogal nag élection yi ñu dëgmal candidat bu ci nekk taxaw wax ku ci nekk wooñu waaye ci nga xam ne mooy docteur Abdoulaye ñaan ñëw waxtaan ak ñun ñu gis ci moom li nga xamante ni mooy ak taalibe gis ci moom ngor gis ci moom jom ak xam-xam gis ci moom itam mu doon borom loxo yu set wicc ndax bu doon xaalis la wut ñun wala moom la ñu bëgg nëgë ni ñi ngi ci feneen wala ñi ngi ci ñeneen ndax ñoo ñu soxla nañ ñu te woon nañ ñu waaye dañoo nekkul ci ay caaxaan te itam lu du dëgg du des te wax naa ko léegi ndiki bi ñuy def fi déclaration bi addina jàmm bi bu mu foog ne dafay dund wala muy def loo xam ne ëllëg du taxaw ci kanam suñu borom mu daal di koy seet mbir mooma càmbar ko ba xam fan ba xam naka la naka la ca nekkee woon naka la ca doon doxee lan moo waraloon lu ni mel kon jàmm bi wartu umpale dara ci ak dundam xam ne dara du asaar politique yamul addina ndax politique mooy lenn la loo xam naka la ñuy def ba defar dëkk bi ba taxawu askan wi l'art de serrer la cité loolu képp mooy politique ñu xam ne kon politique benn bànqaas la ci bànqaas yi ñu mën a liggéeyale Serigne Touba bànqaas la ci bànqaas yi ñu mën a liggéeyale suñu borom ndax xëy takk sa ndigg di xalaat guddi ak bëccëg ngay yendu léeg-léeg doo nelaw ngir luy suqali gox bi luy suqali réew mi luy doxal askan bi ndax lii ñu tranquillité bii ñu am ak làmp yii ñu tiim ak lépp lu ngeen fi mën di gis muy bépp kuréel bu fi nekk ci luy doxal réew mi muy lii indi courant lii indi ndox lii indi lépp bu politique amutoon loolu du am kon politique lu ama am solo la lu nga xamante ni képp ku noble képp ku nga xamante ni yàlla daf la may xol bu sel da nga koy war a sóobu ngir taxawu sa askan gàcce amu ci jërë ngeen jëf gannaaw loolu nag bi ñu leen xamalee docteur Abdoulaye Niane ak lii yéeneem ak fi mu jaar dem fi impôt domaine démissionné ndax lan moo tax mu démissionné mu ne dama fas yéene moo ma ko ba boppam damaa xam ne impôt domaine bi ma nekk di fa gañe sama teraanga di fa liggéey ñu may fay béréb la bu tuuti ci réew mi ba nga xamante ni mënuma ma faa toog di matal sama yéene ci réew mi wala may liggéeyal sama réew li ma ko bëgg a liggéeyal loolu moo tax ma démissionné bàyyi liggéey boobu bi mu jógee ci loolu mu ne damaa dem ngut nguti jéema a dajale samay mat dajale samay weccet ba taxawal sama bitik wala sama taabal mënal sama bopp dara di jéem wëlbatikuwaat jëlaat doomi Touba dugal leen ci bërëb liggéeykaay yooyu kii ñu àndal mësuñu ko tabb ministre ci Sénégal donte imposé nañ ko ko wala bëggoon nañ mu doon ko mu bañ ndax dafa xamal ki yore réew mi ne ko li nga gëm ak li ngay doxee gëmuma ko te wax naa ko ba àddina bépp xam ko poste de responsabilité yi ci wàllu politique bu ko neexoon mu am ko bu yàgg ndax xam-xam bi yàlla may na ko xame bi yàlla may na ko tolluwaay bi tam yàlla may na ko ko muy gorob Serigne Mountakha boole si yore doomi Serigne Mountakha kon kooku yaakaar naa fii la dëkk ci Touba këram nekk daaru Tanzil kër baayam nekk daarul Xuddus bokk ci mag ñi toppoon Cheikh Mamadou Moustapha ni ki ñun ni suñu waajur bokke woon ci ñu topp ci Cheikh Ibrahima Fati borom daarul Moxti ñu xam ne kon lenn ngir ñu fexe ba sunu gox bii du des gannaaw waaye sunu dëkk bi du des gannaaw ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal itam du ñu des gannaaw ci lépp lu nga xam ne koom la wala muy njariñ jëm ci askan bi loolu tax ñu engage dugg ci list bi liste bi nag mën nañu wax ni ñun ñoo ci treizième ci lu ëpp téeméeri nit ñu tabb ñu ñun seen doom ñu nekk fukkeel bi ak ñett ci lu ëpp téeméeri nit yi ñu tànn ci Touba ngir ñu war a teewal askan wi fa nga xam ne foofu la ñuy doxalee luy doxal dëkk bi luy doxal département bi muy Mbàkke Touba Mesere ak mbooleem li nga xam ne moo ko wër. bu ko defee ñu ñu ñu ñu xam ne kon loolu mooy li am liste bi su ngeen demee mooy list bi ngeen di voté képp ku ko votel na nga jàpp ne votel nga ndonga lii di wax muy ndonga lu xeebu lii. turam moo ci nekk te ruus naa jomb naa toog foo xamante ni dañ fay wax wala ñu fay def naka sudut noonu te waxtu wu ma fa toogee. ànd koog ñi nga xam ne ñoo nekk ci kanam gis ñuy def naka sudub noonu wala ñu di ko wax danaa taxaw wax ko ba ñëpp dégg ko te boobaa bu dee waxtu waxtu da ca topp te taqalikuwuma ak ñoom aw ma benn benn benn benn temps bu may ferte bu may perte fenn foo xamante ni lëggeel Serigne Touba nekku fa ñu leen di xamal ne nag ñu ngi leen di sant bu baax a baax ci jotaay bii ngeen ñu wuy si ngeen xam ne ci seen njëriñul bopp ngeen ñu wuy si nit ki mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam dafa jot ngir ñu défendre suñu bopp dañoo war a doyal ci doomi Casamance yi dikk suñu réew mi di ñu tàllal suñu loxo doomi Fatick yi dikk di ñu tàllal suñu loxo doomi Kébémer yi dikk di ñu tàllal suñu loxo wala sax feneen ak feneen ak feneen ak feneen ñu di leen jiital di leen tabbu ñuy dem mbokk yi ma wax leen lenn ñàkk xam ak ñàkk xool ni nga xam ne noonu la ñuy tabbee moo nu yóbbee tey li ñu gën a bañ ci àddina gën di ko xeex ci àddina moom la ñuy dund fii ñu toll xam ngeen ni kuréel gu ñuy wax ànd sàmm jikko yi bërki Demba Ndiaye yóbbu nañu loi assemblée nationale ngir ñu criminaliser loolu ñuy wax homosexualité di jëf ju ñaaw ci réew mi ñun ñi nga xam ne ñoo tabb député ya fa nekk lan la ñu wëlbati ko def xamal ñu ne li ngeen bëgg mooy li ñu gën a bañ ñoo lànk mbon gu rëy gii ñun député yi ngeen tànn yéen waa Touba yéen waa Mbacke du ñu taxaw ci lu ko fi jëlee ñoo lànk te yéen ñu fi tabb te moo ne député yooyu ci sunu alal la ñuy dund ci sunu teraangal la ñuy dund ñoo yor seen doom yor seeni soxna teg leen fa waaye li ñu gën a bëgg ñun moom lañu gën a bañ kon ndax Touba du jot ñu tànn seen ay ndaw yu nga xam ne fii la ñuy bàyyeekoo suñu jógee ci département bi nañu dem ci li nga xamante ni moom mooy ay élection législative dana danañu àndaat bu ñu jógee ci législative yi danañ dem présidentielle fas yéene gunge président Abdoulaye Niane mu dem ba pare ndax jotul kon doom Touba daal di jiite li nga xam ne mooy réewum Sénégal gannaaw ba Serigne Mountakha sonne lool ba taxawal université bi nga xam ne ay milliards la ko taxawalee ngir bëgg yar bi Serigne Touba def ci ay doomam ñu mën koo wasaare ba mën a jëriñ àddina bi yépp ngir bëgg Serigne Cheikh Gaye mi dafa nag coono ba mu doon sonn Cheikh Mamadou doon ko sonn yàlla na suñu borom yokk seen i leer loolee mën a sotti la ci des mooy ñu leeral leen programme mu docteur Ablaye Niane ci dëkk bi li ci gën ëpp solo te askanu Touba soxla ko man ak yéen ñi fi toog ñëpp ndax ay liggéeykat lañu ndax ñëpp dañoo war a xam ne dañoo war a ñaq ngir ñu mën a lëggeel Serigne Touba ndax lépp li nga xam ne bëgg nañ ko lëggeel Serigne Touba du loxoy neen moo koy def docteur Ablaye ñaan gis ni Touba li ëpp mooy ñun dañuy consommer mais duñu produire mu jóg dem gëstu daje ak ku ñuy wax Cheikh Ahmadul Badawi yu di ki nga xam ne moom la Serigne Mountakha dénk lii di université bu Touba mu waxtaan ak moom mu xamal ko ne ko am na suuf su yaatu su nga xam ne Serigne Saliou yëkkati woon na ko mu jaaroon ci ay loxoom suuf soosu nekk biir Touba moom docteur Ablaye Niane mu fas yéene bu ñu ko tabbee nu ñu toog fii ba mu jot ci conseil départemental bi ñu bokk fa nekk ak moom dañuy jóg jël suuf su yaatu soosu def ci ay petites et moyennes entreprises fexe taxawu jigéen ñi ci ay financement fexe leen a taxawu ci ay formation waaye taxawal leen ay bérébu liggéeykaay ñu mën di liggéey dara bañ koo xeeb dalal lépp lu nga xam ne koom la di jóge ci àdduna bi di dugg Touba waaye ñuy fexe ba di produit ñun tamit di jox nit ñi ñuy consommer su ko defee suñu développement mën a avancer te itam bay ci sawewu tànk su boobaa yéen ñii fi toog lépp lu nga xam ne njariñ la luy jógee ci département bi war a jëm ci askan bi kenn du leen ci jiitu kenn du leen ci ëppale ndax ba muy metti yéen a toogoon ànd ak moom tey itam nit dañuy wax ne am na loo xam ne boo ko fa xaarul buy metti boo ko fa xaarul buy neex doo ko fekkee ñu bëgg bu ñu topp ñi nga xam ne ñoo yore nguur wala ñoo yore alal ñu ñuy jox ay tiset di ñu joxe ñatt waaye nañu faste suñu jom ubbi suñuy nopp xool suñuy bët xam ne avenir yi suñuy doom mi ci suñuy loxo avenir yi suñuy rakk mi ci suñuy loxo docteur Abdoulaye Niane delluwaat xam ne njàng dafa doon lu nga xam ne jafe-jafe daf ci am lool ci Sénégal ndax dafa mel ni mbir mi dañ koo wat maanaam dafa mel ni dafay doxe genn wet ndax réew mi di Sénégal bëri ci démb rek ministre de l'éducation nationale dem na assemblée nationale ñu woteel ko budget bu nga xamante ni ay milliards yi milliards la ngir lan njàng mi nga xam ni moom moo war a mooy njàngum ndaw yi Sénégal yépp waaye ñun dongay daara yi ak sunu doom yi ci daara yi dafa mel ni loolu dañu ni seppet seen loxo sànni ne bokkoo leen ci milliards yooyu réew mi di joxe te seen ay njaboot dajale ko mu xam ne kon dafa mel ni mbir mi dafa dañ ko wat mu féete boor fii nga xamante ni fi ngeen toog ci kër gi ci seen gannaaw dimanche bu ci nekk ñu ngi fiy toggal dongo yi di leen ko jox bu dee weeru koor bis bu nekk lay doon te yéen ñi fi toog seeni dërëm ak seen i ñaar ngeen koy dajale ànd ko ak soxna mi mu doon lu nga xamante ni yéen bu ngeen sañoon wala bu ngeen amoon la ngeen bëgg dañ leen di sédd ci li nga xamante ni moom mooy alal ji nga xam ne mooy alal réew mi ngir seen doom yi ne ci daara yi mën a njàng njàng mucc ayib waaye mën a tee bañ a tee taxaw fenn naan sarax ndongoreer wala yu ni mel ndax kat dafa am loo xamante ni avancement dafa war a am ci am réew waaye ba fi mu toll mbooleem ku fi jiite réew mi li gën a des mooy li nga xam ne moo ëpp solo ci réew mi muy waa lislaam waa kër Serigne Touba ak mbooleem ku bëgg lu baax ci àddina bi di taxawu diine lislaam fii ci Sénégal ñooñu la ñu gën a néewal doole gën leen a gannaawal mel ni ki bokkuñu ci réew mi kon dañuy tënk suñu kàddu di sant mbooleem ñi fi teew. man Abdou Faye mii laay sant ndax da sama sët dafa feebar nekk jànnatu ma ma ñàkk ci téeméeri junni ak juróom fukk Abdou fay fekk ma fa moo ak ak délégation am ñëw dimbale ma ne ma mère Fatou Gueye sonn nga torop dégg nañ ko waaye ñi ngi ñëw di seet si sab sët. di la di la ndokkale jox ma lañ may jox. sonn nañu ñun waa Touba sonn nañu waa ñu ngi sant yàlla nag ndax yàlla moo ñu yor ñun ñëpp waaye ku ñu jàppale ñu jëm Touba gii Kër Ñang gii inondation bu métti lañ am ren ñu bari dañoo génn man APR a nga ne sama wet woo nañ ma maa lànk maa lànk ba ku ma lànkle barki démboo Njaay bi ñu suñu kii Ablaye ñaan mii maaraa woote bi ñu yoree seen këyit maa ko nangu seen i ñu soo ko mën leen jóge leen fii ni du tooñ nawleem ñu ngeen bëggee nag ñu dem ci lu leen neex ñun fotalu nuy góor jigéen ndax sunu doom yi dañoo bëgg ëllëg ñu doon ilimaan sunu doom yi dañoo bëgg ñu jàng suñu diine ndax àdduna bi lu ci nekk dafa gàtt dee dafa gaaw waaw dañoo bëgg bu demee suñu ginnaaw suñu doom di ñu ñaanal yaa suñu borom di ñu yërëm mais waxuñu suñu doom di ca xooka di def ci fi jigéen ñun bëgguñu loolu te duñ ci fekk kenn nag. te jàpp naa ni li ñu waroon wax yëpp sëñ ab Ablaye wax na ko jarul ñuy guddal euh, <laughs> moo ñu waxaaleel wax dëgg yàlla parce que li mu discours it buñ ci naree yokkaat yeneen toogaay bi dafay metti li moo li ngeen war a xam si Ablaye ñaan xam ngeen ko. suñu doom la Touba la dëkk damay wax ay fee man mii di wax ak yéen ci Macky Sall laa nekk bàyyeeguma ko de waaye ànduma ak moom ci doxalin bi muy doxal ci réew mi moo tax listam bi ma contre ko parce que man waxuma sax ay affaire góor jigéen mais suñu dëkkandoo yi nekk Mali ku am mbokk Mali ak ni ko ni ñu ni ñu bëgg a def Afrique ànd kook tubaab yi wax dëgg yàlla dañoo war a jóg Touba nag politiciens yi dañ ko jàppe ab xaal Bougane Gueye Dany ñëw dagg Sonko ñëw dagg Macky sàll ñëw dagg Karim Wade bañ koy dégg ba léegi mu nga Dubaay nekk ci njabootam di yónni ab paaka naan ko Cheikh Mbacke Baara Doli demal dagg dañuy lànk kenn dootuñu dagg dañu war a am fulla ak fayda ñun ñii ñun ñii nekk ci Macky sàll ci télé lañuy wax pression bu ne ñu ngi koy dund ñu ngi ñuy jox xaalis di ñu bëgg a ger dañuy lànk jigéenu Touba dépassé nañ war nañu dépassé ma ne jigéenu Touba dañoo bëgg a jóge ci njaayum kafe ngoon ak njaayum ndox mérité nañ leneen ñun loolu loolu mooy suñu contrat yéen jaru ngeen di jël kàddu fii naan Ablaye ñaan nee leen ko nangam ak nangam. problème yi nekk Daaru Marnaan mooy problème ya nekk ca marché mooy ya nekk ca xayra moo ne ca saam Touba amul benn liggéey xale yaa ngi ci saretu mbaam yi boo rombee garage Dakar bi sa yaram day daw parce que nag dëkk bu amul formation amul jàng jigéen ñi liggéeyut ndaw ñi dañuy am temps di dugg ci lu leen neex